karaamaam ya niroog muxjisaatu aadama ya maanaam ki doon yonentu yàlla Muusa foog karaamaam ya moom waliyu ba niroog karaamaay yonentu yàlla Muusa ki doon yonentu yàlla Isa tamit karaamaam ya di niroog yonentu yàlla Isa demeet ba yonentu yi jeex bañ ko seetee nag Cheikh na Tidiane yi mooy ki niru yonentu bi ci waliyu yàlla yi mooy ki ko gën a niru ci waliyu yàlla yi moo tax bu la neexee bankal sa baaraam ñaar fukk ya fa ko tegtale yoo xamee na nii bu ci nekk boo ko yéree ci yonantu bi boo ko xoolaatee ci wàllu yàlla yi seex rek nga koy fekk waaye ñaar fukk yëpp du ci xaj danaa la ci jukkil juróom-ñeent bi ci njëkk yonantu bi la yàlla jagleel ak tëbb géej gu ñuy tuddee nubbuwatu ku ci mosa naan ca jamonoy aadama ba ci sayduna isa yonantoo la nàndal bu tëjee robinom bi ñoom ñëpp mar yonantu bi moo tëbboon yonantu yàlla aadama tur ba taxoon mu xamoon ko ba koy xamal malaaka ya moo tax yàlla ne wa allama aadama al asmaa kullaha ba mu leen ko xamalee nag yàlla ne ñëw leen ngeen màggal seen maître bi usgudoo li aadama sujjóot gi aadama moomut ko xaqiqatul muhammadiya bi nekkoon ci aadama moom moom sujjóot ba ndax moo tax aadama xam tur ya waaye tamit bul fàtte ne yonantu bi moo tëbboon yonantu yàlla suleymaan ba taxoon mu mënoon a dégg waxi picc waxi picc neexul dégg booy wax ak nit sama la sa waxi picc waaye nag suleymaan yàlla da ko may mu dégg waxi picc ba alquran ne wa allamnaahu mantiqa tayri looloo waraloon mu njëkkalee yonantu bi ba muy def tukkee mu siiw ma ànd ak jinne yeeg njanaaw yeeg bàyyi ma yéeg ba yegg tey fi a war a nekk mu ne taxaw leen fii ma taxaw mooy nekk kër ak gàddaay ak mujj ak yonantu yi ba mu paree mu ne leen ku ko fekkee ci yéen na ko màggal te ko sama nuyoo ak maanaam sama ngëm ak sama fonkate ci moom moom tamit moo tëbboon yonentu yàlla yuusufa ba taxoon mu mën a firi gént lu waay gént boo ñëwee ci yuusufa rek mu wax la ca lu la yéem ba alquran ne wali nu allimuhu min taawilil tabaarakallaahu ba ñaar ña bañ géntee ci moom kii ne ko dama gént yenu benn teng-teng mu am mburu ay tan di ca cop mu ne ko loolu li muy firi balaa yàgg danga nga génn ñi rey la dañ lay pàndar tan yi cop sa bopp bi kii ne ko dama gént di nal inab mu war a dellu ci sàngara mu ne ko yow balaa yàgg dañ la tijji ngay nalal buur bi sàngara di ko xelil kon sàngara muy naan parce que inab la ñuy nal ba mu ko waxee loolu ñoom ñaar ñu mujj ne ko ñun gént ñu dara parce que lim leen lim leen firil neexut mu ne leen gént ngee géntu leen li ma leen wax dara mënu koo dindi quddiyal amru lazi fi tastafiyaani kon moo ko ko tëbboon ba mu foor ci firi gént firi gént nag lu jafe la bari na ci jamono ji nga gént dara ñëw ci nit mu wax na ko neexee rek mais yenn cër yi ci yàlla bokk amut mënuloo firi gént benn waay moo gën a bari mooy fe firi gént ak bukki moo bari ci ji jamono waa ji dafa gént ne dama gént yenu moom bukki ne dama gént yenu sayu ñax dem ci sëriñ bi ne ko ah man dama gént biig yenu sayu ñax bu rëy mu ne ko loolu de yàpp la mu ne ko sëriñ yaa bëri xam-xam yàpp rek mu ne ko nag li ma jaaxalaat ma jëlaat beneen sayu ñax tegaat ko ci kaw say booba mu ne ko yee eh, boobu baaxut dee la mu ne ko waaye ma mbas ko sonnu ta yegg si kon façon firi gént googu moo fi bari kon moo moo tëboon aadama Isa ñoom ñëpp ku ci naan ci géej ak nubbu wa rek yonentoo la nàndal kon ki ko war a donn ci waliyu yi moo war a nàndal waliyu yàlla yi moo waral waliyu yàlla yi li ko doree ca aadama ba ba ñuy walee bufta bi ku ci naan ci géej ak wilaaya Cheikh na Tidiane moo la nàndal bu coupé robinaam bi ñépp mar moo tax waliyu li ñuy bari bari wax ji ma wax ma bëgg a wax seex rekk ko mas a wax kenn mësu ko wax li ko paase ci jamonoom kenn waxut ko ba bay àdduna tukki dootoo dégg di ko ko wax seexa mos a toog taaliba yi wër ko mu def ñaari baramam yi ni ne ruuxuhu wa ruuhi hakaza ruuxuhu tumiddul anbiya wal mursalin wa ruuhi tumiddul awliya wal arifin bala nga deg ko waxati lola mu ne sama ruuhu gi ak ruuhu sayyiduna muhammad gi ni lañ mel comme ñaari baram yi ñu ne ko ci nan mu ne gi yonentu bi mo tëbb yonentu yeb sama ruuhu gi mo tëbb wal yu yàlla yi mom kenn moko mossa jëme wax lolo waral mooy mu middu aqtaabi ahlillaahi ajmaihim mooy minhul futuuxu li arbaabil futuuxati waaye ñaareel ba yonentu yëpp baax nañ kawe nañ yëkkatiku nañ daraja waaye yàlla la soob mu jël daraja yonentu bi mu tiim daraja yonentu yëpp alquran wax na ko yonentu bu ne fi sa may yem foofa la may ak seyduna muhammad dooree jëm kaw moo tax alquran ne tilka rusulu faddalna baaduhum ala baadin minhum man kallama allah wa rafaa baaduhum darajaat wa rafaa baaduhum darajaat nag mooy sayduna muhammad moom la yàlla def mu yëkkati darajaam ja mu tiim daraja yépp kon ki ko war a donn ci wëliyu yàlla yi darajaam ja moo war a tiim darajaay wëliyu yàlla yépp li ko may du wér yonentu bi bi yàlla wane ne jaam jee tiim darajaa yonantu yi moom da ko waxal boppam tamit ci hadith wax na ne aadamu wa man duunahu taxta liwaa yi yowmal qiyaama aadama ak moromam yeneen yonantoom yépp sama ron drapeau la ñuy nekk ma tiim leen kon day tekki ne moo leen gën a kawe su boobaa tamit ki ko war a donn war naa wax wax ju niroog moom li ko moy duñ ko mën a dëggal Cheikh na Tijaani mi ko donn moo taxaw gaa yi taxaw toog mu mu jël ñaari tànkam ya dóorante ko ne xadamaaya haataani ala raqabati kulli waliyin min ladun aadama ila nafqi fi suur dootoo déggati ko ko wax mu ne sama ñaari tànk yii teg naa ko ci joggarey bépp waliyu yàlla ca jamonoy aadama ba ba ñuy walee bufta ba bi seex waxee lii moo woowal boppam ne ana muhammadul xaali ñu ne ko ma nga fële mu ne woo leen ko mu ñëw muhammadul xaali ñëw fekk seex toog mu ne ko dama ne sama ñaari tànk yii teg naa ko ci joggare bépp waliyu yàlla Muhammadul Ghali ne ko lii nga wax Abdul Qadir Jaylaani waxoon na ko Cheikh na Tijaani ne ko Abdul Qadir Jaylaani wax na dëgg mais benn tànkam ba la waxoon waxutoon ñaar ya de benn ba la waxoon te li taxoon mu waxoon benn ba ñett tax te li taxoon mu wax ñett ya taxoon da koo tënk ci jamonoom sama benn tànk bi teg naa ko ci joggare yi waliyu wi waaye waliyu jamonoom la ci namm te ñett tax jamonoom lépp moo ci ëpp xam-xam jamonoom lépp moo ci gën a rëy wilaaya jamonoom lépp moo ci gën a rafet aw askan waaye man nag dama ne sama ñaari tànk yi te dama ne min la dun aadama ila nafqi fi suur jamonoy aadama laa wax de ba ñëwal bufta ba Mouhamadou Xaali ku mën a laajte la gannaaw bi mu ko laajee da nga màndeem da nga wuri ba mu pare mu ne ko waaw dama lay laaj ndax yàlla mënul bind beneen wëlliyu bu la gën a foor jox ko may gën a rëy yim la may kooka wax lu gën a rëy lii nga wax seex sëgg ne ko nag karatanal yàlla la mën naa bind yonantu bu gën a for sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam jox ko lu gën a rëy lam joxoon yonantu bi ba koo ko wax lu gën a rëy la daan yonantu biy wax karatanal yàlla la mën naa bind waliyu bu ma gën a foor jox ko lu gën a rëy li ma jox ba koo ko daan wax lu gën a rëy lii may wax waaye ba ko kartan la ma ne coobare ja moo ko namut mu ne ko coobaree yàlla namatut bind yonantu bu gën a foor yonantu yàlla muhammad coobarge ji tamit na matut bind wala yu bëgg na for Cheikh na Tidiane mu ne ko maa ngi toog yow dootoo déggati ku ko wax ba tey kenn waxagut ko wallaahi ku wax loolu jaasay xaqiqa dagg sa doq gi xadamaa yahataani ala raqabati kulli waliin min la doon aadama ila nafqi fi suur doo ko dégg ku ko waxati ba ca tegu nag muy ñetteel ba Cheikh na Tidiane yonantu yàlla muhammad mi mu donn sallallahu alayhi wa sallam moom la yàlla jagleel maqaama bu ñu tuddee xatmiya yonantu bi maxtuum la moo ñëw ci moom lañu ñu tëjee yonantu yàlla yi ba yonantu bi feeñee ba bay àddunay tukki kenn mënta taxawati ci kaw suuf looy def nga ne yàllaa ma yónni boo ñëwee looy wax moo waral moom mu bokk ca turam ya aaqib aaqib mooy tekki aji mujji moo mën a mujj ci yonantu yi kenn mënta ñëwati moo waral liñ doon soxla ci àdduna war koo soxla ëllëg ci àllaaxira yonantu bi jàngal nañu ko ku fi ñëwati nag man ngaa beesal mais ñëw na yàllaa ma yónni looy wax boo ñëwee ne yàllaa ma yónni ñu ne waaw kay yow la ñuy déglu léegi nag nga ne alif laam miim zaalikal kitaab ñu ne noppil bi ko yonantu waxee léegi ju neexat ak ñeenti téeméer bu mu jëm kaw looy waxati nga ne yàllaa ma yónni julli ñu ne bu ko waxati bi ñu ko yonantu bi jàng léegi léegi junne at ak nangam kon looy wax kon dama ne yonantu bi mooy mooy mooy maanaam wax xaatimin nabiyin moo mottali yonantu yàlla yi ñenn ñu jàng wax xaataman nabiyina su fekkee xaatam nga jàng mooy tampon bi ñuy tamponool yonantu yi ci seen xóot-xóoti mbagg yi ñoom ñëpp nag ci xóot-xóotam mbaggam ndeyjoor la féete woon moom kenn rek moo moo féetewoo ci xóot-xóotam mbaggam càmmooy Seydil Hadji Malick ci xilaas mu ne ay kawara ko wër matut ñaar fukk muy misaal na mu may ñi ne gàmba pit ndena pitax ñi ne mi ngi mel ni xaafab maam yàllaak la ca aju waaye booba xaatam yonantu bi lañ ci mujj tamponel ba bay àddunay tukki dutiñ ko tamponel keneen kon ki ko war a donn moo war a moo war a mottali yonantu yi moo war a mottali kon waliw yi Cheikh na Tidiane nag ni mottalee waliw yi ni fe tekki ne ba bay àddunay tukki ba neen waliw dootul amati gannaawam aha kay li muy tekki mooy feeñ na ci maqaamaab xatmiya ci maqaamaab kon wilaaya façon feeñin goo xam ne benn waliyu mosul koo feeñ ci lu paase ci lu teew ci liy ñëw ba jamono yi bay àddunay tukki kooku la ñëw tëj ko muy wilaayatul xaasa gi nga xam ne mi ngi tijjee ko ci jamono yonantu bi ba ci sayduna cheikh comme ni nga xamee ne isa moo ñëw tëj wilaayatul amma dooree ci aadama ba ci sayduna isa moo waral xadmiya nekkul canapé mais fauteuil la ñaari nit xajuñ ci kenn nit rek laata cheikh na tijaan yi di ñëw ñu bari hoote hoon nañ ko waaye ku ko mos a hoote génn nga ca wala ñu génnee la ca imaamu xasaasi yi woote woon na ko génn na ca boo ko seetee maanaam Mouhamad Wafa doomam ja xooteloon na ko ko waaye saxalut ko imaamu Sha'raani wax na ko génn na ca boo ko seetee tamit tabaarakallaahu eh, eh, Muhyiddin Ibnul Arab woote woon na ko moom moom dafa tëdd ba guddi gént ñi tabax kaaba gi mool yi mooli xaalis la mool yi mool yi wurus la mu jàpp nag ba mu des benn place mool mu tëdd fa ci gént gi place ba mat mu ne mooli wurus yi ñooy xutbu yi moo li xaalis yi ñooy wëlliw yi man mi mottali nag tabaxin bi ci biir gént gi maa mottali wëlliw yi topp mbedd mi di way ne binaa xatamalaahul wilaayata fantahat ilayna fala xadma yakunu laha baadi maa faasa bil xadmi ladi li muhammadi min umati wala ilmu ila anna waxdi waaye bi mu waxee lii tëdd ba guddi mu dégg kàddu goo xam ne gisul jëmmu ja ne ko laysal amru kama xanayta wata man nayta bal innama huwa lii waliyin fi axiri zaman ba gént gay jeex ñu ne ko wasa yakunu madd fu nan fii faasa dem na ne ko ni nga firee sa gént gi demeewul noonu de ni nga ko njortoog ni nga ko yaakaaree demee demeewul ko de ki war a mottali waliyu yàlla yi ñëwagut te bu ñëwee bu génnee àdduna faas lañ koy rob lii rek lañ ko xamal léegi nag mu commencé dugg ay xalwa di ñaan fu dem fu ne dem na fa lu ne mu def ñu ne ko nag loolu rek lañ la ci mën a xamal mu ne mën nag kon jébbal naa mbir mi ki nga xam ne moo ko formé woon mu yàlla kon nak koku génn na ca kon maqam ab xadmi ya ñaara ko am yonentu yàlla muhammad mo motali yonentu yi cheikh na tidiane mo motali wëllu yi doto gisati ku ko woote doto gisati mukk ko xamne ku ko woote la walaysa maqamul maqaamul illa li shaykhina walaysa li ghayri shaykhi fihi siwa da'wa mom kenn kesse bi ci tagu timit maqama buñu tuddé tuddee ya muy maktum yonentu yàlla muhammad moko don ci yonentu yi yonantu bi kenn xamu ko xam nañ ca waaye xam ko moom manta ne yonantu maktuum la moo waral Cheikh na Tidiane mi ko doon tamit di maktuum li lay xamal ne yonantu bi kenn xamu ko Uwaysul Qaraniyu di taabiiyu bu baax bu barke boobu moo ñu ko xamal Uwaysu taabiiyu la waaye yonantoo toog benn bis rek oo maanaam Aliyu ak Omar Xataab ñu ñëw toog ak moom mu ne leen maa ngi leen di bëgg a bàttali lu ma ñor du ma fi fekk nag am na benn waay bu ñu tuddee Uwaysu nitu yàlla la ku baax la maa ngi leen di ñaan yéen ñaar dana leen fi fekk su ngeen ko gisee na ngeen ko nangeen sàkku ci moom mu ñaanal leen waaye na ngeen ko jotal sama nuyoo bi Omar ibnu Xataab toogee ci xilaafa gi at mu jot muy laaj ndax bani xaran aj si nañ ren wala déet ñu ne ko reen ñëwut beneen ba mu laaj tewaat ko ba benn at ñu ne ko ah kay am na ñu ñëw ci ñoom mu ne woowal ma leen. ñoo nga def délégation ñëw mu ne dama leen di laaj ndax xamu leen ku ñuy wax Uwaysu ci seen biir am ku ne ko ah Uwaysu miñ xam ne bokkut ak mi ngay laajte parce que kooka sàmmkatu gëléem la li muy nekk ci àll bi moo ëpp li muy nekk ci kër yi Omar ne kooka laa soxla ñu ne ko boo ko soxlaa faw nga xaar ba heure sàngam nga déeg dem ci déeg sàngam foofa lay nàndalee ay gàttam Omar ànd ak àll yu ñu dem tërlu ko sim tuuti mu ñëw Omar nuyu ko ne ko yaay kan mu ne ko maay jaamab yàlla bi mu ne ko ñun ñëpp jaami yàlla lañ loolu du tur mu ne ko yaay kan mu ne ko maay sàmmkatu gëléem bi mu ne ko du tur loolu métier la moom moom di ko nëbbu parce que nitu yàlla day nëbbu te yàlla tamit ay mbiram fuñ ko foogeewu rek la koy def ba mu ñëwee nag bañ wax ko loola muy naxanteeg moom ba mu ne ko maay xara niiw mu laaj ko ne ko yow yaay kan mu ne ko maay Omar ibnul Xattaab mu ne ko aka baax kii nag mu ne ko mooy Aliyu ibnu Abi Taalib mu ne ko ak a baax mu ne ko ñi ngi lay jotal nuyoo hëb Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam woy su ne leen ndax yéen xam ngeen yonantu bi mu ne ah kay ñu nag moo ma nekkoon mu ne noonoo non yéen xamu leen yonantu bi xam nga ki ngeen nekkatoon ak takki ndeerab Sayyiduna Muhammad Omar laaj ko ne ko ba ci hatta Abi mu ne ko ba ci Abi xamul yonantu bi takki ndeeram la nekkoon kon yonantu bi maktuum la kii ko jege ba mel ni Aboubacar xam na ca waaye xamul léppam Kiko sori ba melni ñun timit xam na ca waye nak taxul mu xam ko mu du taxul mu xam léppam motax mag ñi diko firé né yonentu moy jant xam nga jant ñaari bët a koy nyari waaye ñaari bët yi koy xol yépp xamuñ jant bët bi ko jege diko xol ak bët bi ko sori diko xol xool bi ko diko xol du mëna gis jant bi parce que léray ga day tapé ci xar ba ak bët ya jege gaay tax du ko mën gis kiko sori timit sori way gaay tax jant bi day tuuti ci mom tafek fekk ëpp na aduna bi mo waral kuy tag yonentou bi rek na jant la bu sayru ne wa muhayyan ka shamsi min kal muddiyu asfarat anhu laylatal gharraau nga gis ko timin mu ak maam khalifa mam khalifa ne ko ka shamsi yanzuruha rai fa yahsibuha bu sayru ne ko saghiratan wa takilu tarfa min amami kon yonentou bi ken xamuko xam ci nak man naa ne mais xam lépp man tane jant la kon yonentou moy maktum su boba timit kiko wara donu ci waliyu yàlla yi mo wara nek maktum cheikh na tijaani mooy maktuum keroog bañ ko ràngalee tabaarakallaahu maqaama ba mu laaj yonantu bi ne ko maa maanaa maktuum lu ko yonantu wax dafa ne ko alladi katamahu llaahu an jamihil xalaayiqi si waa seydina muhammad kon yonantu bi rek moo xam cheikh na tijaani waaye du malaaka du du nekkul waliyu nekkul tab taalibe bu ko jege kenn ku ne xam ca mën naa ne mais xam ko mënta ne mooy borom maqaamuhul maktuumu an kullil wara siwa nabii maa waraahu waraa kon loolu ngay gis ñeenteel bi ba juróomeel bi mbooleem sharia yi fi nekkoon doore ci yonentu yàlla noox ba ci yonentu yàlla isa mbooleem sharia yooya sharia bi yonentu yàlla muhammad moo ci gën a tasaaroo ñee seen sharia ya benn gox rek aw nit bu doon léegi mën nga wax ne bu doon làmp làmp la boo xam ne mënul paase saal xam nga làmp saal bi mënul mënul leeral peron bi mënul leeral mbedd mi bu fekke timi làmp véranda la munul passer véranda bi waye nak ki yore làmp bo xamne dafa taxaw wayu jant tim ñëpp di leral ñëpp kenn la moy sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam kon kiko wara donu timit ci wali yu yàlla yi dafa wara yore làmp bo xamne warna leral naa aduna ak fu ñu nek motax gis nga yeneen yonentuy ku ci yi tuddu lu may gay reey reey dafa ne passé wut nitam ñe xolal bam tuddé yonentuy yàlla nox lu mu wax laqad arsalnaa nooxan ila qawmihi kon yonentum gaag li mission bay yàgg ak la muy rëy yëpp ilaa qawmi la jeggi wut ko ba muy tudd yàlla hud lum wax wa ila adin akhahum hudan ba muy tuddu tudd yàlla salih lum wax wa ila samuda akhahum salihan ba muy tudd yonantu yàlla shuaybu lum wax wa ila madayana akhahum shuayban ba muy tudd yonantu yàlla lut lum wax dafa ne walutan id qala li qawmihi ba muy yàlla musa ak manam harun lum wax dafa ne idhaba ila fir'auna fir'auna moy nitam ñi rek passé wut ko waaye ba muy wax ak yonantu lu mu wax wa ma ka illa kaafatan linnaas ñëpp rek kon ki ko war a donn tamit ci wëlliyu yàlla yi noonu la mbiram mën a war a mën a demee li ko may du wér kon dama ne juróomi continent ci àdduna bi yëpp maanaam chariatul islaamiyya yegg na fa yegg na ci nit ñëpp yegg na ci suuf yëpp yegg na ci gox yëpp kon tamit Cheikh na Tidiane mi ko donn faw tariqam ba dana tasaaroo ci juróomi continent yëpp ci nit ñëpp ci suuf yëpp ci gox yëpp bu ko mooyee yeneen tariqa yi ab gox rek wala ab koñ wala ab maanaam aw xeet waaye tariqa bu dar kàpp àdduna tariqa tijaan rek ko am moo waral boo ko xamut moom moom ak moom ak moom ak taxawal julli ñooy ñooy lëkkalikoo dama ne foo dem ci àdduna bi sànni sa noppam ndeyjoor dégg benn waaye di li xam ne xadd xaamati salaatu wallaahi boo sànnee sa noppam càmmooy da nga dégg il faatihi limaa ñooy ànd duñ teqalikoo duñ teqali mukk mo waral màkka tay ña fay nekk contre tariqa bi terewul tay ñang fay lal malaanam wasifa fo dem tay ci aduna bi ñu ne ño gëna bañ tariqa tijaan terewul ñang ngi fay wasifa ñoña nak tay goxi aduna bi tasaro mam khalifa way ko ci ñetti bayti ne amat fuyudaatu hada cheyqi sayidina أهل البسيطة أهل البدو والحضر في السين والهند أسرار الطريقة مع أنوارها في رجال كمل الغرر في الشرق والغرب ودنيا الجديدة مع أفق السماء كضوء الشمس والقمر دنيا الجديدة موي نو موند موي موي موي تاي Amérique كون فوني تي أدونا بطريقة bi tariqa tijaan هند سين fa فوني Siin Amérique fu آسي rek boo nga baye ko fa dem america chimal ak janub ma nga fa nga baye ko fa dem Europe ta tariqa bi telna fa yegg rawat na rew mu ngi tuddee Belgique lu teel la fa tariqa ba yegg ay tijaan daje comme nii ngeen def dugg génn kër luye ko di fa wasifa borom kër gi ne da ngeen ni génn kër gi bu ngeen bàyyiwut wasifa mu tëdd ba guddi gént am jëmm ju ko feeñu ne ko boo génnee sama taalibe yi ki sa kër gi ma ma teqale sa jëmm ak sa baat mu ne ko yaay kan mu ne ko maay Ahmad Tijaani di sayyidul qawmi waa ji xëy laaj ñam lu yewoon ne ko waaw yéen seen sëriñ bi nu mu tudd ak nu mel ñi melal ko ko wax ko tur mu ne kooko moom a feeñu démb may naa leen kër gi kon koku moy cheikh na Tijaani tariqaam bi gëna tasaro ci mbollem turuq yi bi ci teggu mbollem sharia yi fi jaar yàlla tudd leen ne sharaa lakum min ad-din ma wasa bihi nuuhan waladi awhayna ilayka wa maa bi ibrahima wa musa wa isa an aqimu diin sharia bi yonentu yàlla muhammad mo ci gëna a mo ci gëna a ci lépp nak buy lu ñuy def mo ci gëna a muy lu laaj ñak buy lu laaj ñuqi tamit moo ci gën a oyof buy lu laaj ñukki ñukki tamit moo ci gën a oyof seetal ci ñuqi sariya yi jiite woon sariya bi yonantu bi seen asaka xam nga ñaata la ruboxul maal nu sa alal mën a toll ñeenteelu xaaju alal ba ngay génnee boo amee 4 millions benn million ngay génnee asaka soo amee 40 millions 10 millions ngay génnee asaka xam nga loolu diis na xeetu yonantu bi nag boo amoon million 25 mille rek ngay génnee soo amoon ñaar fukki million looy génnee 100000 francs xam boo seetee tamit sariya ya ko jiitu woon kenn ku ci nekk foo jullee fu nekkul jumaa wala jàkka wérut boo jullee sa tool du wér boo jullee sa biro du wér boo jullee sa place du wér jàkka ja rek loolu bu ñu ko bëggoon def tey fu ñu ni jëm yàlla na jël yonent bi def ko suuf lépp muy jàkka foo jullee wér na ña ko jiitu woon ku ci sa yére am sobe jël ko dugal ko ci machine bi mu fóot ko du ko du ko arrangé du ko tax a set jël ko dugal ko ci paan di ko fóot du ko tax a set da ngay jël yére bi fa sobe bi toll rek nga xotti ko jëlaat daaxaat ko ca metina yàlla nak ñëw jël yonentou bi ne ko sharia bima la andil dafa yomb yuridullahu bikumul yusra mais wala yuridu bikumul usra wama jaala alaykum fi din min haraj su boba kon nak borom tariqa bako wara don tariqa ba mo wara gëna xoyof ci mbolem tariqa yi liko may du wér mo waral mbolem turuq yi fi mos ba ba may wax ak yaw tariqa na tidiane mo ci gëna xoyof tariqa yi ci bari bala nga def da nga julli ay rak'a bu yang na nga doora sekurus jël sa kurus def ay dog bo xamul sens da nga def dog ba dog da nga yor dog ba dog cheikh nak andil ñetti rek yo xam ne bu sa làmmeñ gaawé fukki minute ak juroom bu yéxé ñaar fukki minute nga doxi sa soxla téeméeri astaghfirullah téeméeri salatu ala nabi bo man kum wirdo la téeméeri la ilaha illallah dama ne li man man nga ko def bi maanaa ci fukki minute ak juroom kon wirdo wu xoyef la ta matale كم نشريها بيرون تبي ويا فيتا ماتالي له خفيف من الأورادي يوصل من قد لا سما العهد حقا للفتوحات موتي غنو ويا بكي تاغو تيميت مبولم شريع مبولم شريعي في جار اك يونن تو يكو دون كوندير يونن تو يالا محمد صلى الله عليه وسلم موتي أبو اي غوري يالا غوري يالا يالا خاصهون تي غناو سيدنا محمد xajuñ ci benn yonantu ca gannaawam nga ku dul bi rek moo leen attan waaye tamit boo ko seetee góori yàlla yàlla xasu ci gannaaw Seydi Ahmada Tidiane xajuñu ci gannaaw génn góori yàlla ku seex Cheikh na Tidiane liñ soxla ci njox seex rek lañ ko mën a jox. seetal tey yonantu bi ku mel ni Aboubacar mi yonantu bi taxawoon cité ne jant bi tiimut ku ma gën ku maanaam gannaaw Aboubacar jant bi tiimut ku gën Aboubacar sama gannaaw man yonantu bi. ba nga neen reyna xolal tay ku melni umar Omar khattab mi yonent bi taxaw ne umar mbedd mum jaar ñeen fukki fan shaytané du fa jaar taxaw ne al haqq Omar umar haythu ma kana umar nga ànd ak deug fu meuna nek xaw setal ma ku melni manam usman usman sayyidna usman ki nga xamne mbolem sahaba saxabaay bi mo ci hepp kersa neena kérok bama jaayante ak jaayanteeg bi sama loxo bi tek ci loxom ba ba ni ma xëy sàngoo suuf sama loxoom ndeyjoor musuma ko teg sama kanam bañ na ko ba bu daan sangu sax day banku tabaarakallaahu nekkoon koo xam ne kersa imut ceeg doomu aadama moo tax yonentu mos sa toog luppam feeñ aboubacar ñëw defaruhut omar ibnu xataab ñëw defaruhut usmaan ñëw rek mu defaru nam toogee woon sayyidatuna aïcha ne ko waaw su ma bàyyi ñëw defoo defaruwoo ah, omar mu xataab ñëw defaruwoo usmaan ñëw ngay defaru lu ko waral mu ne ko Ousmane yàlla da koo rus malaaka yi rus ko kon man mi yonantu yàlla fawma rus ko usman ko am kersa la ma Ali ibn Abi Talib jembe xam xam-xam ja mim mu wax ni ana madinatul ilmi wa ali babuha ponkal yi dañoo xaj ci gannaaw ak yonantu yàlla Isa xajuñ ci gannaaw ak yonantu yàlla musa xajuñ ci gannaaw yonantu yàlla Haruna liñ soxla ci ndox kenn leen ko mën jox moy Sayyiduna Muhammad kesse waye timit dama na la góor yàlla yi nek ci tariqa tijan xajuñ ci benn tariqa bu dul tariqa tijaan xajuñ ci genn góor ak yàlla ku dul Seex na Tijaan yi lañ soxla moo leen ko mën a jox dooree xal ci Seydi Aliou Harasim mam joxoon turu yàlla wa ismulaayil azam ne ko demal ba Madina nga mën ko faa sikkaree leer ji attanut ko mu dem ba Hijaas foog na yegg na maanaam sikkar turu wa turu wa daane ko leer lekka lekkatut naanatut yëngatootut ñi foog ne dee na ndax ñu ne ku lekku naanoo yëngatoo dee nga gas pax ba pare di ko suul seex nekk ca faas ne dafa nu xay dafa nu saaxibi huwa xayyun rob nañ sama àndoor bu fekk ma ngay dund kooku dafa xaj ci gannaaw kenn ku dul seexu tijaan seetal ma tey ku mel ni Seydi Aliyu Tamasini ma nekkoon ca Tamasinata daan bay toolu tàndarmaam bi ba mel na mu war a mel mu jël cëgg ga ci gën a baax ne ko maa la bay ba nga ñor mais xëyoo ma lekk la sànni ko ne ko dalal ci kanam Cheikh na tijaan yi ay junnee kilomètre mu taxaw ci kanam Cheikh seex xool ko rek ne bëxloo lii tamaasini yi bëxloo lii tamaasini yi lii de sama dof bi tamaasini rek moo ko def loolu keneen la demal seetal muhammadul gaali seetal muhammadul misri ki liggéey jaami am du misri demal nga seeti tey bu la ñooñ sore seex omarul fuutiyu seetal maam alaaji abdoulaye ñes seetal seydil haaji malik seetal seex abbas sàll ak ñu mel noona kon dama ne góori yàlla yi nekk ci gannaaw cheikh liñ soxla ci ndox seex rek lañ ko mën a jox motax Cheikh Gassama ne gox bo man di dem da fa fek ndongom lu mat serigne seuk gaay ñi na teg mom ko moy cheikhou tidiane ka misli cheyqi harrasim wa kadam dam hazim wa alawi sama alim wa bu taalib habiballah wa man xaasoo maqaamaatin min aqtaabin muqiimaatin wa naaloo minu xaajaatin bi ifdaalin bi isnillah seex rekk a leen xattan ba ca tegu mbooleem sharia yi fi jaar sariyaab sayduna muhammad moo ci ëpp boromi xam-xam moo ci ëpp tamit ay nitu yàlla tariqa yëpp tariqa Cheikh na Tidiane yi moo ci ëpp ay boromi xam-xam moo ci ëpp ay nitu yàlla te nag boromi xam-xam fu ñu bëri njuba nga fa ay nitu yàlla fu ñu nekk yërmandee nga fa njub nag ak yërmande duñ teqali ko alquran ba alquran jeex foo jàngee waxu dan lu cay tegu wa rahmatan duñ teqali ko ku nekk ci njub ñu yërëm la ku teggi njub kenn du la yërëm kon moo waral saa yoo duggee ci tariqa bi boo ko yëgee boo ko yëgut dugg nga ci tariqaam njub saa yoo dugg ci tariqa tijaani boo ko yëgee boo ko yëgut dugg nga ci tariqaam yërmande ku dugg ku jël gaal ak njub teeri yërma teeru ci yërmande kon loolu moom la yàlla jagleel ko moom Cheikh na Tijaani Cherif radiyallahu taala anhu mu des nag léegi kon Cheikh moom toog di ko nettalee leneen yàq wax la ni yonentou bi ndend ndor ci yonentou yi ni la cheikh na tidiane ndend ndor ci yu yalla yi kon lool mom leer na moo benn bis mosna naa benn waju reuy ngam di tekkale seexu tidiane mune ne tidiane ak diw mané ko xana da nga joom xana cheikh badiane ngay wax way du cheikh tidiane wax ma rek xana cheikh badiane ngay wax cheikh badiane ko la neex tekkale ko way cheikh tidiane kenn du ko tëkkalee kenn kooku matul kalam mu dess nak lim ñu andil cheikh na tidiane lim ñu andi lepp ci sunna la teggu leg leg nit yar sol ci lay gu cëkk commencé di kontu nan ci bida ngeen nek ak nangam mané ha ah, ku ku hut sa ci lay gu mat do héene yalla diina ju mat ku sa lay mangi fo jëlee diina ju mat la ñoo selmal nga juk dem do tasab sax ak yeneen ya ci haju kon jappal lim ñu andil tariqa bi li ñi def yépp tidiane bu ne bu xëyee bala tëdd fukk yef lay def fukk yef yep alquran waxnako sunna waxnako bi ci njëkk mooy da nga wirdo booy wirdo foog nga ubbeeku a'uuzu billaahi min shaytaani rajiim def faatiha def astaxfirullaa téeméer def salaatu ala nabi téeméer def laa ilaaha illallaa téeméer jàllar bi ku lii ba nga koy def ak da koo jëlee ci sëriñ lii boo seetee bi nga koy def dafa am lim lim ba mooy téeméeri astaxfirullaa téeméeri salaatu ala nabi téeméeri laa ilaaha illallaa lii boo koy def am na ci yoo xam ne danga koy biral am na ca yoo xam ne tamit da koy yeelu yii bi nga koy def tamit léeg-léeg ngeen def géew wër benn malaan di ko def ak tamit boo koy def léeg-léeg nga ut benn jumtukaay bu ñu tuddee kurus di ko ko defee lii lépp nag alquran wax na ko sunna wax na ko muy lu leer a leer a leer soo ma dégloo ma farañ fànkale ko par benn ndax allaya naxtul xawaafi min mawaadiiha wa ma allaya ida lam tafhamil baqaru bi ci njëkk ci fukk ya yow mi jàpp tariqa tijaan yaa ngi ubbeewoon aoudu billahi min asheytaani rajim aoudu billahi min asheytaani rajim ji استغفر الله مومود كو استغفر الله جير واخ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاتحه كو موم تا لول القران نيو كو ديغال يالا واخ واذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم سا يون نامي جانغاتي القران نانكو نانغا نانغا كو اوبي مانام واخ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم غير ñar بالاغا جانغا القران فك سلامي واغي تيليم من نا ام تي اي جيو من نا ام تي اي فن من نا ام تي اي قسته من نا ام تي اي رمباج waxal a'uuzu billaahi mina shaytaani jublu ci maanaam laabal sa làmmeñ wi bala ngaa jàng téereb yàlla bi ñaareel bi tamit téereb yàlla bi di alquran moo taxaw taxawaayu kër yàlla jaam bi jóg ngir bëgg koo jàng pare na ngir dugg kër yàlla ñaareel nag ku jug pour dugg kër rawatina kër yi xaj dana la baw ñu fonk xaj lañ su boobaa nag boo fi nekkee xaj bi baw la ngay xuloog moom di xeex ak moom sànniwante ak moom ay mat wala yëre yu xotte ko xajna ci wala ay daw xam nga noy def bo beugé noppalu waxal borom xaj bi mu wax ci xajam bi rek su boba na nga ne a'udhu billahi minash shaitanir rajim yow yàlla laqoo la xaj bi kay wax ci mom dama bëgg a dugg sa kër gi lolo tax nga ubbé ko ci a'udhu billahi minash shaitanir rajim ñaarel bi timit a'udhu billahi minash shaitanir rajim alquran saxal ta waxna la ne kiko mom moy fatihatul kitab fatihatul kitab mi nga xamne man ngaa wax ne moo gën ci alxuraan alquran téeméeri saar la ak fukk ñeent waaye alxuraan mooy sangi saari yi mooy sangi saar yi alquran yi fatiha mën ngaa wax ne mooy alquran fatiha yàlla la soob xeetu yoonantu bi rek ñoo ko am yeneen xeet yi ñu jiitoon kenn amul ci fatiha comme ni nga xamee ne xeet ya ñu jiite woon kenn amutoon tiib amoo njàppuy tiim xeetu yonantu bi rek ñoo ko am xeet ya ñu jiite woon amuñu woon julleeg niiw bu niiw génnee àdduna dañ ko ñaanal waaye amul jullee xeetu yonantu bee ko am motax yonentou bi ne law kaanatil fatihatu fi tawrat mata hawada qawm qawm musa walaw kanat fil injil mata tanassara qawm Isa mune fatiha bu amone ci nitu yonentou yàlla musa yi ci tawratam ba li kon ñoom duñ soppeku ay yahud mune timit fatiha bu amone ci linjil ci tereb yonentou yàlla Isa ba kon nitam ñu duñ soppeku nasaran kon fatiha xetu yonentou bi rek ñoko am ñoko jago muy sar wo xamne man nga wax ne moy alquran القران لي ري ري روح البيان سيتيكو تي جوروم نياري باس با واخنا ني فاتحه موي القران باسكو القران جوروم نياري يف جوروم نينت يف